El Hadj Assane Gueye xëy jox ñuy xibaar ci maître Abdoulaye Wade ca Paris ga mu ne ak la mu xalaat ci kàdduy procureur spécial Alioune Ndao keroog ci janoom ak taskatu xibaar yi yéenekaay bu groupe Futurs Médias ne moom Abdoulaye Wade la mu jàpp mooy fii ci Sénégal dañ fay bëgg a def ab kaa Karim Wade rek waaye ca dëgg-dëgg dara amu ca noonu politique rek mu ne ñooy ŋawti ŋawtee tur wa waaye bu dee ci jëf dara la nu mënul toppee taqal Karim Wade ca dina wuy si m ne ci bi moom Karim Wade ca li ci kanam raw li gët maître Abdoulaye Wade ci lu ay jege ñaaleem dénk waa observateur ne moom ci yëf yi mbiri xaritam sëñ Cheikh Béthio Thioune sax moo ko gën a tere nelaw jamono yi mbiri Karim Wade ndax sëñ Cheikh Béthio Thioune mi mu jàpp ne donte ay avocat am indi nañuy firnde donte jox nañu yoon garanti ne bu ñu ko soxlaa mu wuy ji ba tey ñu ngi ko tee ci kaso bi Karim Wade yéenekaay bi di réew mi ne samedi jàpp dimanche ëllëg gi dina ñibbi si Sénégal ngir waajal janoo beeg brigade recherche gendarmerie Abdoulaye Baldé moom ci observateur di ca ñaawlu ni kilifa yi doxalee keroog di jébbaane ay kilifa mu ne yu xam fii ak bitim réew ñuy doomi njaboot yàgg liggéeyal seenam réew ca mënoon leen a convoqué bu nu gisee luy nuroog njuuj njaaj yoon def liggéeyam waaye toog ci rajo bi rek dégg ñu yàq saw der moom Abdoulaye Baldé ne bu dee nag yàq der rek ñoom ñi yore tey réew mi nanu ngànnaayoo ay siway ndox ca noppee raggu ndax ñoom it xamal nanu leen politique nag ak pexey politique la gën a gis ne moo ne ca ginnaaw mbiri ndax moom Abdoulaye Baldé yàgg na liggéey mu ne ca laata alternance ca na mu ami bien di ngëneel yéenekaay bi di libération lu ñeel liste ba procureur spécial Aliou Ndao siiwal keroog ne doonu rafatouillage maanaam laal laalaat misaal gi mu joxe mooy dañu caa génne turu soxna Aminata Ñaan roof bu Doudou Diagne premier ministre Abdoul mbay amit moom lu ko doy soxla jamono yi ndax na nanu koy songe ak a xabal ca mu bawoo fu ne enquête xëy wax ca wane nataalam moom premier ministre dendale koog bu président Macky Sall yéenekaay bi di enquête defub laaj nag ne mbaa du Mimran moo ne ci ginnaaw di xamb taal bi président Macky Sall moom xambal taal njabootu ñi nga xamante ñooy invalide de guerre yi ngir njël gi mën a gën a dëgër gi Le Quotidien ne ku ca ne ci ñoom baaxe na la fukki le quotidien ne ci bëccëgu démb gi président siiwal boobee xibaar yamu fa ndax yeneen i xibaar yu ni magee def na ko lu ci mel ni dépénaliser délit de presse foofee président Macky Sall ne ministre Abdoulatif Coulibaly yey na ko fa Casamance président xamal MFDC ne waxi indépendance du bokk ca la muy waxtaane ak ñoom ndax réew mi di Sénégal benn pepp suuf duñu ko ca waxaale l'armée bi nag ci bëccëg gi nu ko jagleel président xamal leen ne yéene mooy def ba soldaar bu ca ne yëg ni soldaar nga dund ko ci anam yi mu gënee gu du quotidien it xëy wax ca président Macky Sall ak l'armée gi yéenekaay bi ne Macky delloo na seen ak ak yelleef invalide de guerre yi moom président Macky Sall Soleil it siiwal fukki million yamu baaxee ku ne ci ñoom invalide de guerre yooyu ak ku kër président ba tey ci Le Soleil ne lu jëm ci mbiri sunu jàmbaar yi fi woon ca ñàkkoon seen bakkan ci golf bi lu jara yëraat la xoolaat boobee histoire Le Soleil xamal ñu ci weneen wàll général Abdoulaye Fall mi président xamal ñu ne moom Obasanjo ay càkkutéefam bu bi ca Medina Baye dugal loxoom ci wërug jàmb gi ñu ne Aziz na Tapha Tine Balla Gaye mu ngi ci xat-xat ca kaso ba ca Thiès taxawal na ci ay combat ba ci Modou Lo mu wutal làmb ca Gambie Lamine Diack président IAAF moom lu jëm ci li nga xamante mooy crise football gi Sénégal ci observateur ma nga cay addu mu ne bu dee danoo bëgg a sacrifier Augustin Senghor ngir lu neex waa CAF bu nu wo rek xam ne léegi ay pauvre type lañu ñu tekkeetul dara crise beeg football bi nguur gi dara la ca comprendreul mu ne fédération bi Lamine Diack ne mooy ki ne bu ñu jugee fanu toog nañu fa faax bu ñu buusee meetar